أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الميامين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M-Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen bal xaq di ñaan ngeen bal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungu ñu suñu jaam yàlla te jégal ñu suñu rëcc-rëcc di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp lañ ci jaamu rek yàlla na ko yàlla nungu te defal ñu ci ay teraanga àdduna ak alaxira jégal ñu ci suñu rëcc-rëcc di jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël ziyaar boobu ak néew boobu rek di ko teg ci loxol kilifa ak jotaay bi a cheikh abdul ahad mbàkke mu jottali ñu ko mbokk yépp rek su ko defee tey ñu jéem a tàbbiwaat rek ci liggéey bi muy fatwa bi na xat-xati jamono ji rawatina jamonoy koor gi moom day xat lool waaye nag ñu jéem cee góorgóorlu suñu kéemtalaayal kattan rek di ñaan yàlla mu doon lañu see defal tawfiq doon lañu see dimbali bu baax a baax bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin kon tey laaj yi ñuy tàmbale rek mooy mi ngi jóge ci soxna astafay ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko ndokkeel ci weeru koor wi di siyaare ab sëriñam cheikh dia ak muhammad dia ak mbokki itali yi yëpp yi nekk itali yëpp ak mbokk yi nekk biti réew yëpp di ñaan yàlla gën ñoo sàmm gën ñoo taaw gën ñoo dëgëral ba foofu waaye nekk rek ci kaw suuf yàlla doli laa sàmm dolal la xiwal gu ko sa njort di jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mucc ak gudd gi fan ak wér gu yaram ak mujj gu rafet ak ay xiwal yi ñu gën a mën a liggéey la xaadimu rasul nafaana allahu bi barakatihi amin kon astafay dafay laaj baadu fawaidi xiraatil kahfi yowmal jimaati wa waqtuha dafay laaj ne moom day jàng suratul kahfi maanaam muy saar woo nga xam ne mi ngi ci biir alxuraanul karim ñu tuddee ko kahf mu ne moom da koy jàng bésab ajjuma waaye nag day laaj lenn njariñam ci njàng moom ñu koy jàng maanaam ber ko di ko jàng ajjuma waaye tamit day laaj wan waxtu moo ca gën ngir ñu di ko jàng moom saar woowu di suuratul kahfi dañ ko naan min fawaidi xiraati suuratul kahfi yowmal jumaati maa xaalahu cheikhul xadim fi kitaabihi masalikul jinaan xiraatul kahfi bi yowmil jumaa ajalluma bihil tamastal manfaa wa in biha xarataha li raxba udiya baynaka wa bayna alkaabati tuniiru aydan bayna jumatayni xad quriat fiha bi xayri mayni bu ñu demee ci kita téeréb xaadimu rasul boobu tudd masaalikul jinaan dañ fay fekk sëriñ bi dafa wax lenn ci njëriñ yi nga xam ne yi jàng suuratul kahfi bésug àjjuma làmboo na ko mooy amee na ko mooy Serigne Touba dafa wax ne jàng suurul suuratul kahfi ci bésub àjjuma daal ne ne lépp loo xam ne lii yaa ngi tey sàkkoo njariñ rek maanaam bëgg ca am njariñ bëgg caa am njariñ te def nga nga koy def ne ne bokk na ca ngay jàng suuratul kahfi ci bésub àjjuma daal lépp loo xam ne lii da nga koy def te loola nga di ca sàkku njariñal àdduna ak àllaxira nag lay boole ne ne bokk na ca nga di jàng suuratul kahfi ci bésub ajjuma sëriñ Tuubaa daal di waxaat ci téere ba ne su fekkee ni saar woow di suratul kahfi jàng nga ko bésub ajjuma boobu ngir am ay xemmemteef yoo ca bëgg maanaam nga am loo xam ne danga koo bëgg muy ay ay aajo yoo bëgg mu fajoo ay soxla ay yitte ne ne soo ko jàngee rek maanaam dañuy daal di leeral sa diggante ak kaaba ga kon day mel ni boo nekkan ci ay mbir yoo xam ne yaa ngi koy bëgg sax mu xaw a dëgër ak yooyu dafay mel ni boo ko jàngee rek dañu la indil ak leer goo xam ne kii mën naa am loola maanaam dina mën a faju ci sa yitte yi nga xam ni moom nga am ne ne itam moom suratul kahfi bokk na ci ay njariñam ne ne soo ko jàngee ci bisub ajjuma bi ba kero ajjuma ji di dellu siwaat diggante boobu yépp semaine boobu yàlla day leeral sa say mbir ci diggante boobu maanaam nga xam ne da nga koo jàng tey ajjuma ne ne ba ba kero ajjuma bi dellu siwaat semaine boobu yépp yàlla da lay defal ak leer boo xam ne bi day leeral say mbir muy kon lenn ci tënk boo xam ne bii sëriñ bi wax na ko ca Masaalikul Jinaan ngir mu nekk bokk ci njariñ ñi jàng suratul kahfi bésub ajjuma waxtu wu muy waxit moom comme ni ko sëriñ bi bind ni ci tey moom ne na yowmul jumaati la wax maanaam mooy bésub ajjuma bés nag suñ ko waxee moom te xaaju ñu ci guddi xaaju ñu ci bëccëg dañ naan maanaam mooy bés bi rek mooy guddi gi ak bëccëg gi kon buñ ne tey ji nu ngi ci alxames bu jant soye rek ba guddi ga dugg nanu jàpp ne kon noo ngi ci guddi ak ajjuma maanaam ajjuma dugg na suñ ko jàngee ci guddi gi baax na waaye tamit suñu xaaree ba bët set itam ñu nekk ci bëccëgab ajjuma bi it bu boobaa waxtu woowu itam dinañ ko ca mën a jàng ndax ne ne bésub ajjuma la wax te bés moom dañuy jàpp rek ne guddi la ak ak bëccëg kon guddi gi daal wala bëccëg bi buñ ko ci jàng rek mën na mën nañoo jàpp ne waxtu jàng ko la ngir am ci ngëneel boobu nga xam ne bii moo ci nekk ci ay njariñ yàlla nañ ci yàlla doole defal tawfiq beneen laajam bi ci topp soxna Astafa yi dafay wax salaatu tarawix yi thumma adaa un nafa adaa un nawafil allati fi xurratil ayni li cheikh Shuaybu Mbakke bi nisbati li ramadan soxna si dafay laajal ne maanaam moom day julli naafila ci koor gi maanaam rakkaa yooyu ñuy wax ne baax na ku julli gee ba noppi ci weeru koor nga julli ko doog a def shafa ak witr waaye moom nee na bu jullee rakkaa yooyu ba pare da cay teg naafila gi nga xam ne gii Serigne Choy bu da ko wax ne maanaam guddi gu nekk ci weeru koor gi rek am na ak naafila goo xam ne bii Serigne Choy bu def na ko ci téere boobu tudd xurootul ayni ne ne moom bu defee naafila yi ba pare day daal di jël programme naafila googu ci téere boobu di xurootul ayni te Cheikh Choy bu Mbàkke bind ko mu naafila ko moom itam mu ne ndax loolu mën naa nekk wala déet waaw loolu lu baax la ndax maanaam naafila moom daanaka tënkuwut ci jamono wala bés wala ab lim ñaare boo koy xool maanaam comme yi nga xam ne dañ ko xaw a tënk rek muy naafila ak weeru koor bi ak yooyu nga xam ne sëriñ bi da ko tënk ci biir téeram boobu ak yeneen yeneen demee yu yu yu néew daal lañ ci tënk waaye terewut nag yooyu boo ko defee ba pare itam lépp loo xam ne luy coobareewu nga ko ngir nga mën koo def ci ay naafila rek su booba dañ lay may nga def ko ko kon may na nit ki bu defee naafila yooyu ñuy naafila ci weeru koor moo xam da koy def moom dong ànd moom dong wala mu ànd ko mbooloo su paree su ko neexee mën naa xool itam téere boobu suñ si bi bind def ca naafila weeru koor wi mu jël programme bam ca def ca guddi googee mu daal di koy boole maanaam defaat ko ci guddi googu nga xam ne gii ca la toll loolu moom day gën a baax rek day gën a xéwale ne kon loolu lu mën a nekk la ñu mën leen a boole ñoom ñaar beneen laajam di ci toppaat soxna astafay ba tey day wax lu jëm ci wàllu soccu soccu nag dafa am solo am solo boo xam ne gi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ci daa soññe da ci soññe saxaaba ya loolu ngir bëgg ñuy soccu ba doon na wax am ab xaddis boo xam ne seydina muhammad dane su fekkan ni bëgguma sama xeetu maanaam ñuy am ab coono bu baree bari dinaa leen digal saa bu waxtu julli di jubal ñu soccu bala ñoo julli kon soccu lu ama am solo la te it lu baax a baax la ci wàllu wér-gu-yaram te it noonu ko Seydina Muhammad soppeen bëgg koy sax daa jar ñu roy ko ca ngir ñuy mën di soccu bu baax a baax su ko defee ne ne nag day laaj socc boo xam ne bii daal dafay saf lool boo koy soccoo ndax loolu mënees na ko soccoo ci weeru koor wala déet waaw xam na socc moom boroom xam-xam yi liñ ci jàngagun ci fiqh moom maanaam waxuñu ci wala boo gisaguñu ñu wax ci wàllu socc bi bu safee wala bu safut waaye ñoom daal liñ ci wax mooy socc bu tooy daal lañ ne maanaam bu fekkee ni da ngay woor daal moom bul soccoo socc bu tooy da nga fexe di wut bant bu wow koŋ nga xam ne wow na moom ba fendi nga di ko soccoo kon wàllu cafka gi daal xam naa dinañ ci gën a defe gëstu ba xam am na lenn lu ci boroom xam-xam yi wax wala dit waaye dañoo gisagut lu benn cafka ñu wax ci wàllu cafka woowu xam naa kon daal dañuy fexe ba bu ñuy socc daal mu doon socc boo xam ne bii bu wow la te it bu fekkee ni mën naa nekk itam su safee sap sap mu mel ni soccu guro boobu muy wax sax buñ ko mënee moytu ñu moytu ko waaye yaakaar naa it du yàq ci koor gi dara ndax socc bu wow lañ wax ne mënees na koo soccoo waaye ñuy moytu socc bu tooy mu dugalaat ci biir laaj boobu itam ne bu fekkee ne dafa am ay bëñ boo xam ne bi day nàcc maanaam koo xam ne kii gémmiñam day nàcc léegi bi mu wooree deret jooju rëcc jàll ci am putam ba jàll ci biiram ndax loolu dina yàq koor wala déet waaw dañ ko naan taamudu ibtilaa'i dami muharramun fi siyaami wa ghayrihi dañ ne moom deret moom di ko wan na muy jàll moom dañ koo tere maanaam dafa araam moo xam ci koor la wala lu doonut koor bu fekkee ni nit ki daal moom mi nga ànd ak sagoom te teyu ko xam ne jàllale deret ji moom moo ko ci jublu ne ne loolu moom dañ koy tere moom deret kenn waru koo naan kenn waru koo lekk kenn waru koo jàllale moo xam ci koor la wala lu ci koor waaye dafay dafay wax ne wa iza ta'ammadahu sa'imu fasuda sawmuhu ne ne nit ki su wannee deret te tey ko loolu moom day yàq koor ga wa iza sabaxa ad-dammu ila al-halqi min geyri tama taamudi btilaayihi fala yuftiru sawmu bi zalika fala yuftiru sawma bi zalika ne ne nag su fekkee ni deret ji dafa jàll ci put ga te tayu ko maanaam su boobaa ne ne moom loolu moom dañ ko koy jéggal maanaam du yàq koor ga ndax ñoom fuqaha yi dañuy wax ne li anna allaha la yukallifu nafsan illa wasaha yàlla ne dañ ne yàlla moom du teg jaam bi lenn loo xam ne lii attanu ko maanaam mënu ko maanaam nit ki li mu fàtte wala tayu ko wala ñu forcer ko ca daal ñett yooyu yëpp dañ ne maanaam jégg nañ ko jullit bi bu ca defee loo xam ne lii diineem da ko doon tere su ko defee loolu daal mooy li nga xam ne lii mooy laaj yi jóge woon ci soxna soosu yàlla nañ ci yàlla doolu defal taw yox bu baax a baax yeneen laaj ci topp sëriñ Mouhamadou Diouf moo ko fi yónnee jëwriñu alxuraanul karim borom taxawaay bu am solo boobu ci wàllu téere bu sell bu màgg boobu muy alxuraanul karim ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko sant lu rafet lu taxawaayam ci yittewoo gi mu yittewoo liggéey boobu ak nim ci taxawee wax dëgg yàlla am na solo lool yal na ko yàlla gën a dëgëral bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mouhamadou Diouf dafay laaj. tadakkuru sujudi sahwil xabli baada salaam wal baaqiyaati saalihaat wa akli cheyin xalilin sëñ Mouhamadou Diouf dafay laaj ne ki nga xam ne kii daa war na sujud sujudal xabli maanaam sujud boo xam ne bi da nga koy sujud bala bala ngaa sëlmal léegi tazakuru sujudi sahwi alxabli baada salama ginnaaw bi mu sëlmalee la fàttali ko nekkat moom waran naa sujjóot bala sëlmal waaye tamit yëmu ca waaye bi mu sëlmalee ba noppi itam dafa def albaaxiyaatu saalihaat yi nga xam ni moom la ca moom la ñu teg ci julli ga waaye tamit daf caa boole yi tamit am na lu mu mos ci wàllu ñam lekk na dara ba pare doga fàttaliku nag ne moom waroon na sujud sujudul xabli waaye fàtte na ko ba def na fi yépp xam na loolu moom dafay mel ni ku koy toppatoo moom am njuufeen lay doon rek xam naa wala am jingéen xam naa moom dañ ko koy jégg rek xam naa moom noonu la fay demee su ko defee loolu dañ ko ci wax naan la xaraja fi zalika yasjuduhu ma tazakkarahu fuqaha yi dañuy wax ne comme sujudu sawi noonu mu ñu waxan ne soo waree sujud xabla fàtte ko ba sëlmal baada da koy rempli wala mu war a doon baada nga jiital ko itam def ko xabla itam ne ne ba tey loolu du yàq sujud ba sujud ba day wëy kon jéem may nañu nag ñu remplacante dañ ne sujudul baadi moom lu mu yàgg-yàgg rek soo ko fàttalikoo maanaam mën nga koo sujud donte dafa am ay at kon gis nga dafay nii mu waxe ni ne sëlmal na def baax yaatu saalihaat ba pare lekk dara ci diggante bi itam dog ko fàttaliku kon du yàq sujud boobu nga xam ne bi moom la war a sujud saa bu ko fàttalikoo rek da koy sujud tabarkalla xam naa loolu moom wàllu njuuf nii la ñoo ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax beneen laajam bi ci topp Mouhamadou Diouf dafay laaj tanaawulu soxoori ma adanil fajri bi duuni bahsi tuluil fajri beneen bi ci toppit sëñ Muudu di ko laaj moom itam njuufee ne ne lool wax dëgg yàlla ndax dafay laaj ne ki nga xam ne kii daal dafa waajal ab xaddam teg ko xam naa xaw a biddanti ba dégg ñuy noddu mu daal di jóg rek maanaam lijjantiwut maanaam noddu gi ñuy noddu gan xeetu noddu la mu daal di jël xaddam boobu daal di koy jëfandikoo kooku muy laaj lan moo di ab ateem xam naa foofu moom itam dañ ko naan foofu dafay def yëfi njuufeen wax dëgg yàlla ndax nit ki moom bu dee woor jaamu yàlla guñ mën a def rek dañ ca war a góorgóorlu ba nuñ cay war a taxawe rek ñu di ca taxawe noona waaye nit ki nekk ci weeru koor maanaam dégg ak nodd rek lijjantiwut nodd googu maanaam nodd ak yeete la wala nodduk salaatu gi la mu daal di jël ak ndogoom jël ab xaddam lekk ko foofu moom wax dëgg dafiy def am njuumte boo xam ne bii xañ na duñ ko ko jàppe sax waaye warute def noonu daal ndax maanaam xadd dañ koy wutal waxtu woo xam ne bii dañ naa bu jotee nañu bàyyi lekk nañu bàyyi naan bokk na ci nag waxtu woo nga xam ne bii dañ ko tënk noonu mooy bala ñuy salaatu ñu wutal ko waxtu dañ ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam daana xadd toog diir boo xam ne bii maanaam des na fa jàng lu war a mat juróom fukki aaya alxuraan ñuy doga salaatu te jëm mooy suñu roy waaye nag danoo war a góorgóorlu di ko roy ci yépp loo xam ni doon na ko def waaye nag waru ñuy xaw di sàggan wala ñuy sàggan sàgganlu ba yooyu maanaam ñuy xaw di juyoo ak moom dañuy war di góorgóorlu ba su koor suñu nekkatee ci koor maanaam bu nu dee xadd ñu jéem a xadd balaa salaatoo jot su ko defee ñu roye ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama terewut nag boroom fuqaha fuqaha yi dañoo wax ci masala bii ne ida kaana laa yaalamu tuluu al fajri aw yashukku fi tuluu al fajri fa siyaamu saxiix dañ ne kooku def loolu nga xam ne dafa ànd ak nodd ak salaatu googu di lekk ab xaddam ne ne su fekkee ni dafa xamutan ne fajar jot na wala muy sikki sàkka ci ne ndax fajar jot na ne ne su dee sikki sàkka daal fajar jot na wala xamut ne fajar jot na bu boobaa ne ne kooram nga day wér waaye nag wa in kaana yaalamu tulu al fajri fa alayhi al qada ne ne nag jamono jooju mu ànd ak nodd gi muy lekk ab xaddam ne ne su fekkee ne xam na ne fajar jot na ne ne bés boobu moom da ko war a woor waaye itam da ko war a fay kon njuufeen boobu daal xam naa noonu mu xadde keroog moom mel na ni buñ ko doon gën a gëstu bu baax a baax daal bés boobu da ko war a fay ndax ni mu ko waxee maanaam dégg na nodd gi waaye lijjantiwut ba xam gan façon nodd la kon dafay mel ni lijjantiwut ba xam fajar gi jot na wala déet jéem nag ay lënt lënt mag day am moom da day fe day war a wóor bés boobu continuer ko waaye tamit mu jéem koo fay rek daal ngir lënt lënt yi nga xam ne mi ngi ci biir mu mën a tàggoo moom mën a daj moo gën a wóor daal masala bi ci wàllu nodd gi ak xadd bi fuqaha yi dañ cee wax lu baree bari dañ ne fal mu azinu yu azinu ala taqwimi ala zannil fajri dafa ba am ay nag ay tomb yu baree bari ndax xam nga ne boo nekkee foo xam ne fii noddukat yi dafay bari maanaam du ñu noddandoo da nga dégg kenn noddu ba am ab diir keneen doog a nodd nga toogati ba ci yàgg si ba amaat ab diir nga déggaat keneen di nodd loolu tax dañ ne nag boo fekkee ni da nga nekk ci béréb bu mel noonu nga xam ne noddukat ya dañoo bari te it ñoom dañuy def taq wi mi rek maanaam dañuy xayma di dàkk waxtu wi waaye duñ ko teg ci dëgg dëgg yi maanaam ne heure sangam moom ñoom ñëpp ca la ñuy noddu ne ne loolu su amee yow ci sa bopp yow yow war a def sa góor-góorlu bopp ci di jéem a xam waxtu wi nga xam ne bii ci nga war a mën a yemale sa xadd bu fekkee ni ci weeru koor la ndax gis nga bu fekkee ni da ngaa ne foo xam ne fi ñu baree bari dañuy noddu te duñ noddandoo doo xam yow ci gan nodd nga war a sukkandiku ngir nga xam ne waxtu jot na kon da nga war a góorgóorlu lijjanti waxtu wi fan la ñu war a toll bàyyi xadd ak it bu ñu dee nodd ndax nodd gi mën nga caa xadd wala mënoo caa xadd ndax loolu la ne fa man arafa tulu al fajri xaruma alayhi al akl ndax ne ne ku xam ne fajar gi jot na moom maanaam waxtu wa jot na bàyyi woo xadd nga lekk ne ne bu booba dañ la koy tere araam na ci yow wa illa fa lahu al aklu inda shakki ne ne it bu fekkee ni nag xam nga ne fajar gi jotagut ne ne bu la neexee mën ngaa lekk ba keroo fajar googu di jot ne ne nag wal axwatu lahu an yataqaddama bil akli xablal azan ne nag li daal li gën a am solo daal gën a leer ngir lënt lënt bañ am mooy yow da nga war a góorgóorlu ba li ngay xam nga lekk ko balaa ngaa dégg genn noddu goo xam ne gi nodduk salaatu la kon daal waa jooju mu noonu mu def noonu daal ca ni mu ko waxee daal xañ na njum da xaw na ci am ndax dafa jóg rek lijjanti wut nodd gi gan façon nodd la mu daal di lekk ab xatam kon xam naa yal nañ ci yàlla doole defal tawfiq rek ñuy moytu yu mel noonu daal beneen laaj bi ci topp soxna daal jonn moo ko fi yónnee ku bëgg liggéey bi ne seen bëgg lu baax rek moom itam yàlla na ko yàlla gën a dëgëral bëgg na lu baax loolu wax dëgg yàlla moom dafay laaj man akala aw shariba fi nahaari ramadana sahwan lan moo di pàtte dane soxna si day laaj soxna jaar jonn day laaj koo xam ne kii daal ni ko wolof di waxee maanaam da nga juubu ci koor maanaam ki lekk wala mu naan wala mu def luy yàq koor ci digg ci bëccëgu koor gi te teyu ko maanaam ku juubu daal ci ni ñu koy tënk nan lay def kooku dañ ko naan yukmilu sawma hadha al yawmi wa yaqdihi indal malikiyati bu fekkee dañu xool ngiram imam malik daal dañ ne ki juubu ci koor te mooy lekk na wala naan na wala def na luy do koor ga te teyu ko ne day mottuli bés boobu su ko mottulee léegi nag su koor gi jeexee mu doog a fay bés boobu nga xam ne bii ci la juubu woon noonu daal la fuqaha ul maliki wax ne ki juubu noonu la war a def day àggale bés boobu mu juubu su koor gi jeexee mu daal di fay bés boobu nga xam ne bii ci la juubu woon yeneen laaj yi ci topp sëriñ daam seen moo ñu ko fi yónnee sëriñ daam seen ponkol moomu ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax xam na jamonoy koor gi moom mel na ni dañuy xaw a yéeme lool suñu mbokk yooyu suñu doomu bàjjan la ñoo ngi koy ziyaar bu baax a baax ñoo ngi ziyaare sele seen ziyaare mbokk yépp waaw sëriñ daam seen dafay wax ne day laaj as sinnu almubaaxu li salaati almarati aljumuata si ndaam seen daal laajam bu njëkk dafay laaj jigéen yan at la war a am ngir mu mën a dem di julli ji ajjuma dañ ko naan salaatul jumaati xayru waajibatin ala almarati li jëkk daal mooy jigéen moom dañ ne âge bu mu mën a am maanaam at yi mu mën a am rek maanaam jullik ajuma moom nekkut lu war ci moom maanaam wa ma dalika law sallat aljumata saxat bittifaaxil fuqaha terewut it nañu neneñu bu jigéen demee julli ji ajuma it nag julli ga wér na waaye daal dañ ne maam waru ko daal maanaam moom julli waru ko waaye d'accord nañ ñoom ñépp ci ne bu demee julli ji ajuma it moom soxna si loolu baax na waaye tamit dañoo wax ne wal afdalu laha an tusalliya fi baytiha zuhran ne ne nag li gën nag mooy daal jigéen moom su dee ajjuma la mu jullee ca këram ne ne loolu moo gën maanaam julli tisbaar remplacé ko julli ajjuma wa xaalal malikiyatu in kaanat ajuzan laa araban lirrijali fiha jaada xuduruha aljumaata ba tey ci ngërëm imam Malik mi liñ cay jànge dañ ne bu fekkee ni soxna soosu ku màggat a màggat la ba maanaam génn góor amatul benn xemamteef ca moom ne ne mën naa dem di julli ji ajjuma ama shaabatu in xiifa min xuduriha alfitnatu xaruma alayha alxuduru wa illa kuriha waaye nee nañ nag bu dee ni dafa doon ndaw ku ndaw la maanaam soxna si dafa toll ci daal am na taar ak yooyu ne ne su boobaa bu fekkee ni dañuy ragal ne moom bu demee julli ji ajjuma mën na fa indi ay fitna daal ne ne su boobaa moom day araam ci moom mu dem teewi di ca jullik ajjuma ga ne ne itam su fekkee ni tamit ragaluñ ca maanaam moo indi fitna itam ne ne boobaa dañ koy sit kon daal dañ ko koy tere wala mu nekk loo xam ne ni lu ñu sib la bu fekkee ni gone la moom soxna si kon la ca gën daal mooy mu jullee tisbaar ca këram wa illaa bu dee julli ji itam na góorgóorlu ba na ko lislaam sant maanaam jigéen war naa solo muur ay cëram bañ faa def lenn loo xam ne lii lu fay yee fitna la ci wàllu googu daal maanaam mu bañ koo def waaye la gën daal mooy jëm dañ ne moom waru ko daal la ci gën rek mooy bu ko mënee mu di ko defee ca këram muy doon jullik tisbaar beneen laaj bi ba tey ponkal mee koy laaj muy sëriñ Dam Seen dafay laaj tajawuzu masjidin ila axara day laaj lan mooy atteeb ay jàkka yu baree bari ngay weesu jàkka di jàll ci jeneen jàkka joo xam ne xañ na mooy gën a sori loolu lay laaj loolu dañ ko naan jaizun ndaxte wa anna al masajida lillahi dañ naan loolu moom dara néew ci kum neex man nga koo def ci bu ñu sukkandikoo ci aay bi nga xam ne bii moom la yàlla wax ne wa anna al masajida lillahi jàkka yépp yàllaa ko moom kon yow moomu di julli ji di taamu jàkka loolu may nañ la ko ci maanaam nag na nga nekk na rek da nga tànn jàkka ji ci da nga fa bëgg di jullee ji wala moo la gën a jubu waaye tamit bul jàpp rek ne yeneen jàkka ngay weesu nag moom da nga leen a xeeb bu fekkee ni loola feeñu fa loo lu tax nga di leen xeeb wala nga bañ fa julli ngir leneen loo xam ne li daal du sabab boo xam ne bi sababu sharia la waaye moom bu fekkee ni jàkka ji moom ju mu mën a doon nga gis ne tege nañ ci yoon maanaam ñu ngay julli nañu war a jullee te it ña fa nekk di julli ñay jiiteeg ñay nodd ak ña nekk ca jàkka ji yëpp daal ñu ngay def la nga xam ne ni moo leen sharia sant su boobaa yow jàkka ju mel noonu rek maanaam mën nga faa jullee bu la neexee waaye weesu ay jàkkaay jàkka dem ci jàkka ji nga xam ne ji moom nga tànn ngir bëgg fa julle ji baax na jërëjëf yeneen laaj ci topp sëriñ Bada Ndiaye oustaz moo ko fi yónnee ñoo ngi koy ziyaara di ko ndokkeel bu baax a baax moom dafay laaj miqdaaru masaafati lati tubixul fitra fi ramadaana day laaj distance bi nga xam ne bii moom la chariané ku koy tukki mën nga bañ a woor bu dee ci biir wo- weeru koor la day laaj diggante boobu ñaata kilomètre lay doon wa hal hadihi al ibaxatu tastamiru ila yawmina hada am muqayadatun fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam di laajaatim titam ne ndax loolu ñu ne may nañ ko nit ki muy mu bañ a woor ci biir weeru koor bu fekkee ni day tukki ndax neneen loolu mi ngi continuer di nekk ba di di dagan ba léegi wala loolu dañ koo tënk rek mu no nga xam ne ca jamono yonente ba sallallahu alayhi wa sallam rek lañ ko waroon di def dañ ko naan diggante bi nga xam ne bii moom la nit ki bu dee ni day tukki ci weeru koor ñu may ko mu mën a dog ba ñibbisi ca tukki boobee fay mooy fuqaha yi da cee dañ cee wuutee am na ñu ne soixante-douze kilomètres lay doon am ñu ne quatre-vingt-deux kilomètres lay doon ñaari distance yooyu daal lañu wax ne kuy tukki te mu nekk ci biir weeru koor bu fekkee ni diggante ba mat na loolu ci ay kilomètre muy juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar ñenn ñi moom la ñu wax am ñu wax juróom-ñetti fukki mètre juróom-ñetti fukki kilomètre ak ñaar daal su ko matee mooy diggante bi nga xam ne bii ci la ñu war a wàññi julli bu dee tukki tukki gu dagan la waaye tamit may nañ la nga bañ cee woor te boo ñibbisee bu weer wi jeexee nga fay koor go nga xam ne gi moom nga leman ca biir tukki ga waaye tam lim ci tegaat di laaj muy ndax loolu ñu mayen kiy tukki ci koor ngir mu mën a bañ a woor ndax loolu ci jamono yonte bi dong lañ ko saxalan mu yem ca wala day continuer ba tey loolu dañ ko naan loolu moom lu alxuraanul karim teg la muy aaya bi mi ngi ci biir alxuraanul karim te aaya boobu bi fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee dafa wëy di dox ba sayyidina muhammad jóge fi aaya bi suppiwuñu ko génnewuñu ko dindiwuñu atte boobu kon loolu aaya bi may wan muy alxuraan gi biñ ko doon niñ ko doon defe ci jamonoy sayyidina muhammad noonu lañ koy defee ci suñ jamono jiinu tollu waaye tamit loolu day continuer ba kero àdduna di tukki ba maanaam kero àdduna di jeex ndax ab aaya la boo xam ne bii ma wax na ko maye na ko te aaya boobu dindiwuñu ko remplacé wuñu ko ci jamono yonente bi te jéem dindiwuñu ko remplacé wuñu aaya boobu ba Seydina Muhammad jóge fi maanaam aaya boobu moom mënatut a dañ day sax ba kero àdduna di jeex ñoo war cee attewoo kon aaya boobu daal maanaam muy ñàkk a woor googu ci kiy tukki daal ci biir weeru koor moom ca jamono yonente ba ak sunu jamono jii nu nekk ak ëllëg ji ñëw moo yem ci atte boobu ku mu neex soo nekkee ci tukki boobu nga mën a bañ a woor loolu ñu may nit ki maanaam mu mën a bañ a woor bu dee tukki ci weeru koor maanaam muy laaj woor gi bañ a woor gee gën wala woor gi moo gën loolu dañ koy wax ne ko bi ngay jàng aay boobu di wax bi yàlla faratalee koor muy yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyam boo demee ci beneen aay muy wax laalakum tattaxuna ayyaaman maadudatin bi mu limee foofu ne may nañ nit ki daal bu dee ni dafa nekk ci ab tukki mu bañ a woor bu fekkee ni dafa feebar itam mu bañ a woor gis nga boo demee ba ca daaneelab aay ba yàlla dafay wax ne wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamun yàlla bi ñu mayen ne kuy tukki mën ngaa bañ a woor wala nga feebar mën ngaa bañ a woor waaye itam dane kon su ngeen mënee maanaam su ngeen wooree nag maanaam moo gën man wa wa an tasuumu xayrun lakum maanaam ngeen woor moo gën kon dañuy jàpp ne ku ko man boo nee ca tukki ba donte may nañ la nga bañ a woor itam maanaam soo mënee woor moo gën ndax loolu la aay bi wax loolu la aay bi wax ne waan tasumu xayru lakum in kuntum taalamuna beneen laajam itam day laaj mooy sujudu tilaawa mooy sujud boo nga xam ne bii dafa am ay sujjuut yi ñu def ci biir alxuraanul karim yoo xam ne nit ki suy jàng alxuraan bàgg ci aay yooyu bu ko jàngee bu jàngee aay ba mu ba aay bi jeex dafa war a sujjuut muy laaj sujjuut boobu su fekkee ne nit ki dafa nekk ci biir ak julli wala boog muy laaj jëkk li mu laaj lim ci jëkk laaj mooy lan mooy sujjuut boobu mooy loolu mooy sujjuut bi nga xam ne bii dafa am ay aay yoo xam ne yii dafa nekk ci biir alxuraanul karim nga xam ne soo ko jàngee ba aay bi jeex da ngay sujjuut mooy sujjuut nag mooy da ngay wax allahu akbar dëpp sab ji ci suuf daal di wax subhaana rabbiyal aala loo ko mën a wax doog a siggi waxaat allahu akbar noonu dong la ñaari kàbbar lay doon da ngay wax allahu akbar doo ca yëkkati say loxo soo dëppee sab ji ci suuf daal di wax subhaana rabbiyal aala loo ca wax amutab lim soo siggee daal di wax allahu akbar amutab sëlmal moom itam loolu mooy bu fekkee ni lan mooy sujudu tilaawa niñ ko defee itam buñ nekk ci ak julli mooy kuy julli di jàng alxuraanul karim ci biir julli gi ba àgg ci aay boobu nga xam ci aay yi nga xam ne dañ leen a war a sujjóotal aay boo ci àgg rek ci biir julli gi da ngay daal di wax allahu akbar daal di sukk sujjóot benn sujjóot daal di sigiwaat wax allahu akbar daal di continuer waat ca julli ga su fekkee ni mbooloo la itam imaam bi su jàngee aayab sujjóot bu bu bu àggee ci aayab sujjóot day wax allahu akbar daa di sukk mbooloo ma itam wax allahu akbar topp ko ñu sujjóot sujjóot boobu mu siggiwaat waxat allahu akbar daa di continuer ca julli ga kon daal sujjóot boobu noonu lañ koy sujjóote moom boo bu fekkee ne da ngay jàng alxuraanul karim te nekkoo ci biir ak julli da nga koy sujjóot su fekkee ne da ngaa nekk ci biir ak julli itam da nga koy sujjóot bu fekkee ne ci biir julli gi la soo ca àggee da ngay wax allahu akbar daa di sukk sujjóot ko daa di jógaat taxawaat wax allahu akbar daal di continuer ca sa julli su fekkee ni mbooloo la itam ñoom ñëpp dañuy ànd ak imaam ja imaam wax allahu akbar ñoom itam ñu wax allahu akbar daal di sukk su jóot ko daal di siggiwaat wax allahu akbar daal di continuer ci seen ak julli yal na ñu yàlla defal tawfiq bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam